ange billah bisimillah inna wa niya laaw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni zaahiruna baatinan kenn du Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nuyu nañ kilifa dina nuyu kilifa aadu nuyu njabootu làmb yëpp di ñaanal ñi tëdd ci hôpital di wax yàlla na yàlla fëgg seen bopp duñ fàtte tam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci prison yi di leen ñaanal bu baax a baax a baax ñoom ñoom ñu génn fa leen fa dugaloon ñu ban cee delluwaat di ñaanal tam bu baax ñi nga xamante ne dañoo génn àdduna di leen wax yàlla leen yàlla yërëm te xare leen àjjana di waxaat ak lu làmb suba incha allah albarka kayre dafa war a taxaw na ko ak lu làmb yëpp taxaw ni ngeen taxaw Ada Fass taxawoo ko Lac de ñëw la ngeen taxaw ndogal la boo xamante ne dal na ci kawam te yàgg na fa loolu bi mu bëree ba bi mu bëree ba tey daanak boo xoolee ci fan yooyu ci lañ ko jàpp boobu ba tey mi ngi ci kaso bi te suba dafa war a taxaw tribunal bu dakaar kon nag na gars yi ñëw en masse ñu dem jàppale ko bu baax a baax a baax di ñaan nag suba bu taxawee ayca di waxaat baax a baax ki nga xamante ne mooy Albarka Kairé suba day taxaw ak lu làmb ñu ñëw jàppale ko bu baax a baax baax a waaye tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy fan Kër Massar Alaaji Paate seet si na xale muy baaba Jaxal numéro 2 xale yi nee nañu wëndang bi mu war a daje ki nga xamante ne muy 4 faar mu bàyyi koo Tëngéej bàyyi koo Rio xale bi keroog ba mu ko seetee mu ne ma matu ñëw nga ci digg ñànkatang bi ma ne ko ah boo mu maa maaw ne ko waaye est-ce que du Alaaji Paate xale ya fa nekk ñoo gën a dëkk ci digg ñànkatang bi mu ne ma la la lépp di leer te le 20 la lépp ñu ànd ak méta production méta bis bi nee naa riis na neex na par ndax xale yi boo leen jëlee jee seen mafia yu doy waar doy waar doy waar laa fay fekk baabaa yu noonu baaba nuyu naa la. fay naa la Madou bëgg naa booy fi toog yëpp waa di sant ñëpp tamit ñu si mel ñoom Garga ak ñoom Koyaase ak ñoom Nabi ah waaw si jógee di sant suñu ñaari waajur waar di ñaar di wax sama yaay yaa na sama njariñ sama yaay yaa na fexee sama njariñ waaw mu ma jugee si loolu nag di wax la le 20 novembre arène nationale Faar la waaw. le 20 arène nationale yaa Kaat Faar lan moo la dugal ci làmb làmb ni mu bëri coono bëri coow fi mu ne nii xale yi ne ci di dagg seen yaram nga dugg yow du ab teewoo benn métti nga ne làmb nga bëgg. naa xam nga booy amaana sa dàq ñu li ñuy def ko waa waaw ñun dàq ñu li ñuy def ndax ñun ay jàmbaar lañ gis nga booy ni ñoo tax ñu dugg si làmb ko waa mais du dara barki alxuraan ñun bëgguñu làmb. lam mo ñu bëgg quoi waaw waaw booy ñoo ma ngemb booy ñoo ne ma joxal wëndëng bi ñu ne wëndëng bi joxla la wa takal ma barki alaaji faala mbaaxe tapetuma loola billaa wala wa taala waa si ñom mo loola bëgg dem quoi man ñooñu laa soxla mo Lo mo loola laa soxla déggoo le ma la xana yo mo loola laa soxla billaa wala wa boy xol xooluma len sa du makkat far boy bob nama ñëmé quoi bu ma bëggee daan manam ñëmé mo boy bob booy boobu ñeme ma quatre far wallahi azim ñeme ma quatre far ay média dañ koy seet waxal tóora booy bi du wax di wax di daw kooku du jàmbaar kooku maa ko ëppale biir barki alaaji Fall eh, le fin day wéet dangu laa préparé lamb dangu dangu laa préparé lamb ji barki alaaji Fallu Mbaaxe maa dangu lébu ga kër aji fay laa nekk dangu guy ga fa laa nekk fa laa mala ëppale biir ngay fuuf doo jàmbaar sax su ma la fa fekkee laa la wax nee nga di nga dëbb di nga mooxal man naa la aqi naa naa la rabi naa te loo war a fëra mën a war a jee su ma ko fëre ba war a mën a war du yow dama laa xeeb barki alaaji Fallou Mbacké te loo ñëw ak ak say mbokk laa la boo ñëwee da ngay daanu par force waaw si gëm-gëm boo xam ne lu nekk si man la quoi li ma entraîné du pour moom décembre damay dem bëre ji par force décembre damay jël lit avec farap sëg dóor samp jaagay sul tànk déggoo li ma la xanaa du ma rëkkale si dara doo xool yow mo pare nañ si lépp doo dégg xanaa wër na alaaji Fallou Mbaxe laamu ji laamu nix ma la aboori nix ma barki alaaji Fallou Mbaxe léppay daw kala puutee rek si biir déggoo ma la xanaa quatre far bu ma la jàppee bu ma la jàppee laal nee nga quatre far nga sa batterie laay teggi nix ma laay woo mu tëjël ma capot bi doo bandi naa la linjaa yow yow. maa maa ngi lay fay. nice bi laa maa kontaan tey sama doom ji moo aye Baba Jaxal wëndëng bi fii boo xewle ñëpp ay ñàkk yox la jëli ko ñun ay mécanicien lañ dañuy wekki ñaari faar yi tegal ko fu fële. xanaa moom yow doo xool yow. yow booy yow xanaa xamoo lekk nga kii dafa lekk avance kii ay mbokkam nañ ko ñaanal mooy loolu noonu li si lees waxul ko waa xam rek ñun jëf lañ gën a mën a ko wax mooy gooma de kii ay kalapuuta lañ koy def xam nga kalapuuta am naa ne sibul loolu noonu waaw sibu ko lépp lañ koy jàngal géographie lañ koy gën a tegal ko par étape par étape moom mooy choisir nag nu nu mu bëgg a daanoo eh, mais oh. alaaji paate seul fii ragal dëkku fii fii mooy paate digg ñànkatang bi boo ñëwee rek ñu soosala gawar yaa ngi fi yaa tout waaw ngaari yu mag maaleykum salaam ñoo ngi waaj ñoo ngi pare ñoo ngi pare lépp lebe ñoo pare waaw tëngëj mbër dëkku fa tëngëj mbër dëkku fa barke sëñ Bamba barke sëriñ Fallu jaxal lañ indi de jaxal bi li fi day dal par force te sow bi da dar barke Serigne Bamba waaw la vrai moom ñoo ngi koy waaj moom comme ni ñu faral di waajee rek xam nga ndax lii nii sa amaana jàppee ñu ko làmb quoi war na Serigne Bamba musuñu kaa jàppee am làmb ngir boromam barke Serigne Bamba booy bi kaatul faarul day xaaru bëri doole kii du daburi moo ko war na Serigne Bamba ndax war na mbéng fii ndax xale bu ndaw la te ñëpp a ko wër Bamba pare bi ñëpp a koy topp na yàlla bu génn nga xam ne xale génn na te naaj mbocc ba ngi si ginnaawam nag ne ko quatre fois nag bu yow waaj nag lu mun a waaj mu ay mboxam yow ñu waaj ko xamni dawul dara dago mo le xoolal milieu baa ngi nii toog war na Serigne Ba mu zembare zembarewul kenn mbolé dago mo le mom rek ay zembare te paate la dëkk na te du ko musa ragal noonu la demé wa lamb yi suñu lamb la ñoo ko moom lamb yi wa lamb yi suñu lamb la billahi wa lamb yi na ko trois la billahi wallahi mbaraan ma ñoo xam billahi wallahi bo xam naka laaj nak joué ko pari foot xam nañ li ko trois billahi wallahi assalamu alaykum waaw salaam maa ngi lay fay. nan ngeen waajee combat bi. non Laobé. Laobé ñu tiit ñu ko. Carfa du mbër. Carfa du mbër. billaay te ngay amul mbër benn mbër ma fa amoon te yàlla jël na ko. Papa Yada. ko waral moo ko fay mbër. <laughs> mais yéen ñeme ngeen waat ngeen de. Carfa daa ragal jaxal xam ko gis day daw. Eh, kii da ngaa ragal ko loolu tëngëj lii loolu tëngëj la loolu tëngëj la moom xam na ko loolu tëngëj la. Carfa ah. xam na wala ak tëngëj mi ndey ñoom. non la fay dañ koy daan xoolal ñu jël ñeneen ñi ñu quatre fois teg ñu ko bër déggoo lu waxee rek mbooloo lañ teg Ada Fass Ada Fass senior ko na senior tamit teg naan ay la soxla ñoo jël wëndang mi <laughs> ci la fay salaamaaleykum waaleykum salaam ah, maa lay fay maa si jàpp kii la fay ma la fekkee dama pare fépp problème xaaj undu secteur bi undu secteur bi baaba jaxal sel borom sokolaa bi waaw mu day daw rek fi leen dëkk fii si paare bi borom sokolaa bi moom ma la vin ma la vin laa bi borom sokolaa bi ma la vin da ngay lu bees tàq le vin mu lu bees tàqee ñëw baaba jaxal sel vin dañ ko waajal ak lépp barki Seydina Muhammad bërëb suñ ko jàppee nga xam ne du dara parce que Seydina Mohamed dañuy bëre daan bilaa walaay wa taala maa wax lool noonu waaw. lépp jaamu quatre faar quatre faar du mbër la buñ bu ñu ko jàppee dañuy dindi trois faar yi bàyyi ko muy doxantoog benn bilaa walaay ne ko si bawal fu muy jëndee fu muy jëndee bagage interdit nañ ko foofu station du fi jaar bilaa walaay wa bu fi jaaree dañ koy séquencé bilaa walaay quatre faar du bandi du Baay Faal bilaahi waaw wandang bi nga waxal de xool ko bu baax xool ko kaw ba suuf ki lu mu entraîné pour quatre far sax quatre far coow la ñu boole moom bilaa wallaay nee na mooy monsieur mooy madame madame la maire monsieur bilaaxe madame la maire monsieur monsieur baani la fe dañ ko jàppee dañ koy séquence ak lépp waaw ah, la fe moom suñ ko jàppee moom xam lépp dëgg la parce que Seydina Mouhamed Kalfar foo ne mboq laa su tàngee day bàyyi ak seen i jàmm eh, la gone yi wuyu ma ñoo bokk école mais bokkuñu classe da yaa ngi dégg xool ko bu baax ku mu hmm. gone yi mooy seen lii déglu ma la gone yi mooy seen ménagère xoolal ay eh, dawul daraay dëggoo ma de gone gi jàmbaar la champion la barke sëñ Bamba te xam nga lu yàgg tamit mooy loolu noonu xam mu yàgg see topp gaan eh kii day yàgg mais xoolal alaayu poire ba mu doj booy bi koy téye en main nii barke sëñ Bamba eh ñu duñ ngeem kuy ragal de barke sëñ eh, rek jeex na eh bu ko rey dañ koy rey poire de put fuy xam nga xoolal fii arrière yi fii dox bi dañuy commencé wàccee gars yi eh. toog ay quatre far yow ngeen naan da ngeen. quatre moom xamante nañ quatre far man ak yow dajante nañ tëngeej kenn du la wax amaana wax baaxul sax mais tase nañ fa xam nga ngay dawal indi di affiche di dawal kabooy yooy jàppu la sax le 22 dama fay ñëwaat dama fay wàcc mu la daane incha allah le 22 dama koy dem Zembere bi tëngeej eh. almadi 2 maa fay ñëw ak Mor Wade dégg nga ah, noonu la demee nag. booy boobu laa la wax barki Serigne Bamba dañoo am fu ñu daje muy muy affiché inde di dawal ka booy di laqatu wër na alaaji Fallou Mbaxe mais amaana sax man maa ko talul ko waa talu ma ko waaw man lam moom boole moom rek mais su bu ma waajee lépp ba samay mbokk defal ma lépp laa la safara bu taxawoon sama kanam sax ma koy jéegi barki alaaji Fallou Mbaxe moom amaana xam nga sax moom dafa taxaw nee na moom lébu la taxamul ne lébu baa nii yéen laa juddoo yéen géej yéeni géej laa juddoo samay maam fa leen dëkk maa ngi nii ñaari teen yu bokkul tudd yaa ngi nii maa la ëppale fuuf si ci doo lébu sax yow amaa da ngaa rax yow dafa rax sa raxule Abdou Abdou da rax sa raxule dégg nga Abdou bu ma la jàppee bu ma la jàppee dinaa la siiki dinaa la wéeki ni barki alaaji Fallou Mbaxe pare si lépp noonu la demee nag le maa ko am méta xaaral ma ñëw wër na alaay fal naa la mobiliser kaw ba suuf dinaa la diwal estaad ba mu fees dell bu ma xëppoo soxolaa bi nag nga gis weñi ñaw su ma dee weñi ñëppay daw laa su ma dee dama koy nangu su ma dee dama koy nangu soxolaa bi laay tuuroo ku indi sa mburu ma diwal loxo ba mu tooy xep wallaahi angi boo indee sa mburu ma diwal ba mu tooy xep ba muy si doo xool faral nañ si déggoo borom diitur boobu sa amaana sama maa ko Tyson Senior Tyson Senior man maa ko ne indil diwtiir bi déggoo li ma la axamaa doy waar axamaa sikk booy maa la gën a xam lu yàqu axamaa xam lu yàqu booy maa la gën a xam lu yàqu quatre far maa la gën a pare si lépp yoo xam ma la bu baax wër na alxuraani karim li ngay def ni yaw du sa sago ñi nekk sa ginnaaw ñoo la koy def loo ah. te ñooñu dañ la dugal si loo xamante ne yow xamoo sa appareil nu mu demee ah. waaw ay dara dara po laay bëre ay dara ay dara production le su ma daane incha allah ba jël drapeau bi naa ko indil su ma ñëwee nga jàpp si làmb ji bu baax tamit nga ñëwaat ga jàpp si làmb ji ay dara waaw mooy loolu dinañ taxaw bis ba mu rafet waaw. waaw onze bi onze bi laa ina waale yàlla barki borom Touba Xaadim Rasul waaw ñu ngi leen di nuyu di leen sant ku nekk sa tur ak sa sant waaw ñu ngi nuyu alaay poire jaxal sël nag wóor na Serigne Touba Mbacke jaxal kase ñun jaxal rek la ñuy topp. tiituñu ragaluñu alaayu pare koo xamul dégg nga ko comme ça ron koo xamul alaayu pare mais dégg nga ko bu baax a baax fi amul féemaan amul daw ko de polonton fii déggoo man ay xale yu ndaw sël ñoo fi nekk mais ay jàmbaar rek dawuñu loolu noonu doo xool fii amul kanaara amul këtigeen amul bukat war na Seydina Mohamed ñu neexal góor laa la wax lay daw rek billaay wallaay lamb ñoo ko fa am duñu maye dara kii ñoo ko yar mais billaay wallaay jàmbaar la te incha allahu rabi bis bu jotee laa ngeen xam ne jàmbaaram mu gën a leer mbapat yi fii da koo toj amul morom bu mu fi jaabandeel mu yàgg ak yow benn joow la def ñun daf ñoo teral si teel war na Seydina Amou daf ñoo teral si teel avant muy dugg si arène bi mooy premier combat am di ñaan nag ñu fi nekk nii nañ si jàpp waa Keur Massar fii monsieur le maire ak homme de loi yeeg homme de voie yeeg fi nekk commandant procureur ñu fi nekk ñëpp dañ si jàpp waa fi ay xale yu ndaw yam jom ñoo fi nekk wasalaam yàlla baana damay man maay monsieur le maire maa ngi bëgg na sama wëndëng bii nii waaw population Kër Massar ngeen génn ngeen jàppale ñu monsieur le maire Bilal man Garga maa lay woo nga ñëw jàppaleel ma sama mbër mi waaw premier ministre Ousmane Sonko yow sama waay nga xam nga ma bu baax waaw ñun Kër Massar la wën nag maa ngi nii nag ñoo ngi soog a am combat damaa bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp ci waaw mooy loolu noonu ak waa Kër Massar bi yëpp ngeen génn ala yëppaade tapet du fi dëkk ñun ñëpp mooy loolu noonu yox la jëli ko combat bi nag suñu combat la quoi ñu ngi koy jël au sérieux boo yëpp nañ leen génnee mobiliser leen tike yi macha allah naaj lépp mooy loolu day zembere lépp yaa tout na ñëpp ñëw yaa tout ala yëppaade yaa tout waaw joxal na bu ci am wax salaamaaleykum maa ngi fii képp ku fi toog kaw ba suuf gud ba gud quatre far maa ngi dégg booy ki naan ay ñi ay deux far lañ lay dindi ñi ay trois far quatre far yëpp la ñuy dindi bàyyi la ngay suux bak sëñ Bamba eh wëndal mi nga fi am de bakki Seydina Mouhamed une minute trente faat yo ni tuuroo sokola yëpp taxaw di la xool lañ lay dóor ba toog sa kaw bàyyi la ak xam nga jaxal bu baax ñun duñ gis suñu borom mbër buñu wara war bëreel di sax dugg ay kër naar xaar ko moom jàll bàkki señ Bamba bis buñ la jappé nga xamni ne wëndëng bi japp na la pire borom borom sokola bi ngay xal de ak ci señ Bamba lay tàggatoo lay tàggatoo ak ñan ngay woo ci wo bi. waaw làmb yi gaan ñu di si woo autorité yëpp gaan di si woo di si mel Moussa Fane Menga waaw di si woo Moustapha Meng ñun nag ñuy woo ñun ñuy woo bëriwuñu ko waa ndax ñooñu dañ leen woo sax duñu jàppale ñooñu dañ leen woo sax duñu jàppale moo tax sax duñu amee lamb rek si dem ak suñu ngor barki alaaji Fallou Mbacke nañ si ñëw jàpp bu baax amaana ngay dem di jàppale beneen bër boo xam ne dëkk fii tamit bëre loolu lañ gën a mën ko waa si dëkk jàmbaar la balaa caa doole loolu sama bër baa fii day suul ndaanaan mais amaana loolu day jeex sax waaw tamit ñu si woo ñëpp Ousmane so kii ñu ngi koy woo Moustapha Meng ñu ngi koy woo si lamb yi Bilal man lay woo si lamb yi waaw ñu si mel ñoom Ilimane ay ñoom Badara xam nga maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn ñoom Tamsir ñoom ñoom Latir Latir man lay woo borom Sotaraak man lay woo si làmb ji bu baax di sant tamit waa Tiwaawan ñooñu aw ma seen fay waa Tiwaawan ñoom ñëpp Tiwaawan ron dañuy génn jàpp si làmb ji ñooñu maa leen maa leen sant di leen gërëm ak waa jàmm gën sëñ Meta ma lay ma sant bu baax làmb ji nga si bu baax gis naa lépp waaw noon la demee nag Daara Daara Kara tamit jàmbaar la kooku champion la gaynde la kooku mooy lool noonu ak amana moomay tuura gàllaaj kook tamit jàmbaar la champion la ay ñoom Maurice ay ñoom Saawaal ñoom Sousa ay ñoom Lagros yëpp maa maa leen woo si làmb yi amaana ñëpp teewuñu sax après jour làmb ji ngeen ñëw ngeen xool ko waa waaw génn bi ngeen ñëw ngeen xool barki Alaaji Fall Mbàkke su ma génnee àdduna moom mooy topp barki Alaaji Fall te booy laalaa dama leen fay aller ak retour booy ñëw xoolal jàppal saaku suudóor yi suudóor yi da ngay dem ñu jàppal saaku tool nga dugal sa bagage booy ndax aller booy retour yëpp dañ koy séquencé di ko mbooleel muy comme noonu. Eh, dégg nga wëndëng bi eh. wëndëng bi eh. gone ku mu jàpp bu la jàppee rek nga xam ne doo ëmbe te Sylvain ñëw noonu la demee. yegg yegg nag. ayca <laughs> daa am lamb Nandi Fall kooku dafa am lamb le 7 décembre kooku jàmbaar la la dëkk nag ñëpp ñëw dooleel waaw noonu la demee nag waaw. ayca sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp nii rek lañ koy defee saa ne seen émission mbër ak cumbukaayam ah tey ñu session ki nga xamante ne mooy Baba Jaxal numéro de mu war a daje ki nga xamante ne mooy 4 Far mafia paree ko ci mafia. mafia paree ko ma de mafia paree ko ma si maa woo tamit alaay paare ron di woo waa Sandaral di woo waa Sandaral waa Sanluwa bi man leen woo waa Maam Dior Kër Baxa man leen woo Zem man leen woo B59 man leen woo waa Cité Golo Talfa yàlla na Talfa Talfa dinañ faata duñu faate kooku jàmbaar la ay ñoom aada bu si dee si dee xam nga bëri maa leen bëggee ndax man ak ñoom ñooy ànd di tërëni quoi ay ñoom zele ay ñoom zele ay ñoom fourrière ay ñoom ay ñoom zee bëri yëpp ay jàmbaar lañ waaw moo tax quoi il faut ma wax ko waa waaw di woo mafia zéro heure mafia yëpp waa jamaïcain bi maa ngi woo fondement ba ñoom neex ma neex ma aboori moo fi waroon teew sax amaan dafay manqué rek mais neex ma bu ñëwoon fii fii dina ko saxaan pare nga mafia yi woo nga leen pare ngeen. waa Ada Mariama waa Ada Mariama tamit man leen woo si lamb ji waa Ada Mariama man leen woo si lamb ji seen lamb la lamb ji seen lamb la Lac Rose man lay woo si lamb ji ak Sa Walo man leen woo si lamb yéen ñëpp waaw noonu la demee nag daa am suñu mbër bu doon bëre nag dimanche bi passé samedi bi mais dañ kaa daan ko waa décourage toogal si tànk yi rek comme noonu xabaan jàmbaar la ko waa waaw nag nag toog si tànk yi rek mooy loolu noonu day baax taalibe reetaan ngay def daaru sa yow yaay koy wàccee kaamil waaw ah. ah? yow yaay taalibe waaw ah? waaw taalibe dañ kaa tar wax sëñ bi ay jakara jërëjëf ci caméra bi nii naa la teel caméra ak micro ba waaw noo baa yaay ci quatre faar ngeen am de. parce que kooku bu ñu ko jàppee quatre faaram yëpp la ñuy décorer. dañuy décorer bàyyi leen quatre faar jàppee mu xam ne faar jàmm li ngeen di décorer. su la jàppee mu xam ne bu bëy du possible si yéen kenn. ah mais mais ah. ah tawul dërëm ñoo ko gën a dof ñun bu dof bi la ñuy jël. dañuy tiir roog suñu lam ñoo ko gën a dof. ñoo ko gën a dof bu ñaari sembare. soxla wu ñu ay bëri si la yóbbu ay xaar ñoo ko gën a dof ñoo xam na lu ma wax wala buujoo ala yaa. yéen fan ngeen teg loolu. fu nga teg. Ah.

doful sax. ah ah ñu ngi woo kii ne si lamb yi nag dégg nga ak mbay mbay ñu lay woo si lamb yi noonu la demee suñ maire ndaw yi quoi noonu la demee di woo bëggee mafia yëpp nag mooy loolu day zembare rek. billaay mafia zappe bi 44 bi waaw da xoolal ak Baye Fall yëpp quoi na lamb ji lamb Baye Fall yi la quoi lamb nandey barki alxuraan ku nekkul nande nag woo ñu la si lamb ji. ah sama benn boo tam dafa mooy loolu noonu aara ma lay ñaanal yàlla moo loolu maintien day jeex da mois bëriwul garaawul yow mooy loolu yaa ko fa am boo génnee na xam nga kenn du la wax di ko ñaanal tamit mooy loolu yàlla génn fu mu ne ak ay grand frère yu bëri mais maanaam boo waxee seen tur sax amaana xam nga sax mooy loolu ko waa lii day law waa waa kenn kenn ko waa ñun fii lañ dëkk ku ñu gis rek dina xam ne drapeau bee daw